Ablaye Wade dafa am une très haute estime de blessé moom moo tànnal boppam Blaise Diagne tuddee ko aéroport aéroport bi mhm. ni moom moom xanaa ba mu koy def gëmu ko woon ba tey ñuy débaptiser aéroport bi tur boo xam moom moo ko joxe woon mhm. di ko ko tuddee moom pour moom loolu trahison lay doon par rapport ak la nga xam ni moom nekkoon na son intention première mu tudde ko blessé ensuite dafa bokk ci koo xam ni Abdoulaye Wade dafay loué liggéeyu Blaise Diagne ci ni mu euh, ni mu euh, accompagner donc l'homme noir au niveau du parlement français Blaise Diagne a été un défenseur des noirs un défenseur de l'Afrique dans le parlement français c'est vrai Blaise Diagne c'est pas bien connu c'est pas bien connu par les jeunes c'est pas bien connu ñu bari xamuñu personnage bi mais c'est un personnage qui a joué un rôle extrêmement important dans le parlement français mmh. pour défendre l'homme noir et à un moment où à un moment où c'était pas évident de le faire et c'est ce courage là que mmh. Wade a Euh, a voulu magnifier. Mhm. moo tax mu tuddee ko cette contribution euh, donc à l'émancipation du noir que Blaise a joué dans le parlement li Blaise liggéey ci parlement mhm. euh, français loolu la Abdoulaye Wade bëggoon na magnifier bëgg Sénégal yi xam ko. Mhm. moo tax mu tuddee ko. aéroport Blaise Diagne partir de ce moment nag. bu ñu bëgg débaptiser ko tuddee ko ko loolu ça l'a mis dans une colère noire en effet. bëgg woon. Euh, waaw man man ngaa jël bu ko defee dem ci Siré ñu jeexal. waaw euh, mhm. dafa wax lu am solo. Mhm. mais daf ma daf ma xaw a euh, bouleversé man mi nga xam ne damay topp un peu les acteurs politiques yàgg yi. ah ci ci Blaise Diagne. Blaise Diagne ah d' accord Blaise. Blaise Diagne même ah, parlement européen français sax. Mhm. il était connu comme l' enrôleur ñu wax l' enrôleur de noir en fait Blaise Diagne. Euh, libéré wul noir au contraire ku tënk noir yi la. ku respecté wul noir yi la. tout à fait un député mhm. France sax jël na parole xool ko ne ko yow nag nga mën a jëlee sa mbokk yi di leen enrôler pour ñu rey leen. Mhm. yow xanaa tu n'es pas noir dans dans dans ta mhm. pour dire que Blaise Diagne. maanaam c'est le symbole du traître en réalité. Mm. Euh, d'un homme politique. a dëgg yàlla. Euh, euh, je je suis d'accord pour mbir mi nag c'est c'est une autre facette de sa personnalité. waaw léegi mbir mi nag. Mm-hmm. xam nga jam ñaajo boobu nag. xam naa du objet suñu débat fii waaye jam ñaajo. heureusement moom nangu na mm-hmm. ba léegi macha mm-hmm. mais Blaise Blaise jam ñaajo boobu. Pape Maguette jàpp naa ni xam naa ni bés yi di ñëw. nañ ci def taxaw seetlu waxtaan ndax gis naa ni ñu fay honoré ay nit yi xam ne Euh, am na fenn fu ñu bokkee ñoom ñooñu. Hmm. am na fu ñu bokkee fii xam ne bokkut ak ñun suñu ay gëm-gëm ak suñu ay suñu ay taarix. Hmm. donc peut-être loolu laa bëggoon rek euh, dolli ci Blaise parce que Blaise moom wax dëgg yàlla. li hmm. ñuy wax euh, man gisuma ni valeur bu extraordinaire pour la jeunesse. li mu wax ci Ablaye Wade nag Ablaye wax dëgg yàlla jàmbaar la. même bu dee d'accord maak moom ci lu bëri waaye si courage boobu moom. vraiment illa Euh, quand on dit que nag autoroute à péage bi. Uh-huh. Euh, peut-être loolu rek laa dul d'accord sama sëriñ sama sëriñ moom analyse bi yëpp dafa mucc ayib. Uh-huh. mais autoroute à péage bi man euh, scandale gënu ko doy war. Mm. Pape Maguette autoroute bi on nous dit que PPP maanaam mm. un partenariat public privé. Mm. partenariat bi nga xam ne sur trois cent soixante cinq virgule cinq milliards. vingt milliards. kese la tubaab bi andi. lépp ñun ñoo ko korkor andi ko. ba pare ñu bàyyi ko lu ëpp ay fanweeri at. moom moom lépp mooy doxal. Mhm. non lii moom vraiment du prouesse du génie wax dëgg yàlla lii moom mooy li fi yàggoon am rek jël la part du lion taayee ko jox ko le mhm. blanc muy am li ko neex suñu dëkk mhm. man jàpp naa ne lu ñu war a folli la lu ñu war a xoolaat la ndax lii erreur la woon wala bokk su dul erreur kon jaay askan bi la. Mhm. Ah, te loolu moom euh, am na ñu bëri nga xam ne si am taxawaay euh, du ma tudd seen tur yi ñu bëri mais am na collectif yu bëri euh, ñu mel ni ñoom Elimane Kanak ñoom ñoom mhm. Guy Marius Sagna ñoom Daouda mhm. Gaye Pikine c'est gars yi bëri ñu ngi am taxawaay ñu wax dëgg yàlla ci mbiru autoroute à péage bi nga xam ne man jàpp naa ni peut-être xanaa Macky Sall nag moo gagné Euh, ndam gi léegi ndax teeram gi mooy scandale bu gën a ngante ba su autoroute à waaye dafa mel ni daal <laughs> ay scandale su scandale yoo xam ne Sénégal ñoo ci gaañu uh-huh. ñun ñoo andi xaalis bi yëpp uh-huh. mais euh, partenariat public privé wax mais a wax mën pour nga comprendre que il nga demaat ci contexte historique bi mm-hmm. c'est contexte historique bi moo lay expliquer erreur yi Abdoulaye sax reconnaître na yi mm-hmm. mais c'est bi ñuy def montage financier yi mm-hmm. Abdoulaye Wade nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko xas ci affaire boobu tuuteel ko ba nga xam ne mujj gi da koo defoon question de vie ou de mort mhm. Abdoulaye Wade toll na autorité à péage mhm. ci gouvernement bi ku ci jéem a wax dara sax da lay dàq mhm. da lay menacé na leen boo mënul wax ni mën na nekk sax da lay dàq donc moom dama la bu mujj question de dignité la bu ko jaraloon sax mu couper les veines da koy def donc moom gisatul woon dara première grille d'analyse deuxième grille d'analyse période boobu ñun amuñu woon en montage des projets financiers sous forme de PPP tubaab ñoo ñu gën a xam parce que ki ñu ko jox. moom monté na ay PPP France Turquie et cetera. donc bi ñu ñëwee ci biir kii bi comme wala wat moom jaral na ko na ko lu ne. Mhm. ci biir négociation mu nax ñu parce que moo ñu expérience. léegi voilà moom léegi nag affaire yi dem na ba pare. Mhm. léegi nag droit mooy ñëw. Mhm. yow nax nañ la ba pare mais signé nañ contrat ba pare léegi nee na ngay ma def il faut boire le vingt vin jusqu'à la nuit. naa léegi ñun dañoo jàngaat ci montage yu projet yu demee nii ba tax ni tey jii fii Afrique. dëkk yu bëri dañuy ñëw di jàng si ci l'école de Dakar fi li tey di en terme de montage des projets très complexes de PPP am nañ su ko pourrait appeler une école de Dakar donc sous région bi yëpp dañuy ñëw di jéem parce que lu la koy woon mooy suñu différence ak euh, Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire erreur bi gën a graaw sax la def que Sénégal parce que ñoom seen contribution c'est une subvention à l'exploitation mmh. alors que Wade a eu l'intelligence de créer subvention d' investissement. Mhm. tey jii euh, euh, autoroute à péage bi nekk fële chaque année dina leen coûter euh, ñi gars yi mhm. l' équivalent chaque mois. Mhm. non chaque année dina leen quitter cent milliards yoo xam ni trésor public ivoirien. moo koy joxe kii bi ñun nag du ñu quitter loolu. mais nag liñ ci am néew donc dafa mel ni comme si il fallait juum foofu. pour mën a rattraper wu te projet boobu moo ñu mën a permettre tey jii boo xoolee le montage financier BR. BRT. waa euh, bus transféré euh, ça n'a rien à voir ak montage financier terre moom lu leen neex nañ fa def mm. mais quand même ça nous a permis mm. projet yu bëri ñu jàng ci wañ dem mais malheureusement SDE kii bi aéroport bi Abdoulaye Wade mënul woon a nangu ñu tuddee ko ko mm. aéroport bi parce que non seulement scandale bu rëy rëy moo ko moo ko kii te li nga wax si digganteem ak Blaise Diagne mais dëgg la te loolu ça nous intéresse suñu stade bi ñu inauguré mardi deuxième jour de la semaine effectivement le deux 22 deuxième jour 22 2022 ñu posé woon pôle première pierre bi le 20 bi ñu wàññi deux jours yi mm. mais tout ça mm-hmm. ça ça ça ça ça suscite des mm-hmm. questions. waaw mm-hmm. mais loolu yëpp ça suscite des <laughs> questions ñu ngi delloo ñu ngi delloo te jukkal daal. <laughs> Ah, Blaise moom Blaise a reconnu. waaw que moom la. ah oui oui oui oui il le revendiqué. moo tax mu génnee àdduna sax jullit yeeg chrétien bañ ko suuf seen armée Abdoulaye Wade nag nee moom bàyyi na. waaw loolu lool Blaise Blaise moom li wérte wóor mooy nëbbu ko parce que Amady Ali moom. te affaire bi kenn du ci bàyyi moom moom moom moom bind na ko ndaxte xam ne Blaise bu baax. Mm. Amady Ali Dieng du ancien doyen. Euh, des facultés ne carrément mhm. ba franc-maçon la woon mi ngi duggee ci loge des amitiés yooyu yëpp mhm. wax ci lu bari bari yaakaar naa Blaise premier député noir ku ko liir fekk ko ci mhm. ñun def nañu émission boo xam ne ci moom rek ko def <laughs> histoire yi ñor nañu waaye ah, ah. Ah, ginnaaw dañoo am ay invité euh, Blaise moom li mu doon wax dëgg yàlla nit ñi xam nañ ko heureusement docteur nangu na ko wax dëgg yàlla docteur il est honnête ma bàyyi ko mu mm. mu mu tëj euh, wac sax jëm naa jëm ci numéro lu seeg yooyu deux deux beeg yooyu xam naa buñ ñëwaatee bay kii di ko yaatal yooyu sa mbir la boobu mbir <laughs>